candidature kan moo tax objectivement xam nga aussi contexte da nga koy tenir en compte tey xam nañu ñëpp xam nañu président Macky Sall bu defut bu forcé wut troisième mandat bi. Mhm. c'est parce que Macron lui a dit stop c'est ça la vérité il y a pas autre chose kon tu peux pas dire que dem Union européenne c'est inutile c'est pas vrai c'est utile parce que. li nga wax nag garaaw alors c'est très grave mooy maanaam ñun moom suñu bopp. mais maanaam Macron moo ne Macky Sall. ça c'est l'un des c'est l'un des combats de souveraineté du Sénégal et de l'Afrique. mais est-ce que combat souveraineté. c'est l'un des combats de ah, souveraineté. d'accord que ñu war a taxaw pour que tey. mais les problèmes du Sénégal se règlent au Sénégal entre les Sénégalais. Ouais, justement mais logique pour logique. logique pour logique. ca la ma jàpp logique pour logique c'est vrai bien souvent dañ naan dañu dem euh, Nations Unies yeneen mais logique pour logique. liñ naan potum biir wala euh, jafe-jafe yoo xam ne ñoo koy dund. c'est vrai que ñoom ñoo leen njëkk accordé audience mais est-ce que war ñu ko lijjanti fii ci réewum Sénégal ak peut-être ci Afrique. Mm-hmm. avant ñuy dem ci ay Union européenne donte ce sont des partenaires parce que li ci tubaab. union européenne du lenn lu muy wax lu dul yónnee leen ay observateur ci élection yi wala on waaye du ci kenn ko naan président non non Cheikh dugaat wala diw na dugaat amul benn impact bu ñuy def ci réewum Afrique yi. Mhm. wala ci suñu réew ci lu jëm ci élection bi nga xamee ni bon on est déjà à quelques quelques semaines. Ah, alors je pense qu'il faut pas trop.